ngeen di gis sama ginnaaw. selfie. <laughs> mën na baat ko c'est qui qui est derrière moi et c'est une question ku ko trouvé am 200000 kan moo nekk sama ginnaaw. ñun mën nañ jouer. selfie. c'est qui qui est derrière moi. selfie. qui est derrière moi. xamu leen. Ah, c'est trop nice. Alfie est derrière moi. mais tey tey bi nga def tey bi nga def baax na de. la ilaha illallah ah. mu ngi def pop yaa ngi def pop. tu bats le beurre. elle bat le beurre. mais di jàppale sa team rek elles sont ravissantes. <laughs> non non ex ngay jàppale ci sañ bi. waa ex parce que pour être tendance c'est ce qu'il faut mettre période bi pour sol katu costume yi ah. balaa ñuy dem ci télé achat bi vite fait euh, lan mooy menu bi tey aujourd'hui on va faire une euh, crème renversée au caramel. crème renversée xanaa damay crème bu ñu tuur. bu ñu tuur donc koy def ba pare ñu këpp ko ci mbiir yi. dañ koy këpp. ah mais à la base si moule bi la nekk mais bon ah. après on dañuy renverser. Ah, renverser donc ah. caramel bi mooy mooy féete ci kaw. crème bi féete ci suuf. crème bu ñu dëpp. gëléem bu ñu dëpp waaw. d' accord d' accord d' accord kon loolu mooy menu bi. pour les les les gens qui sont fous comme moi euh, si vous ne pouvez pas faire chez vous euh, crème renversée Alfie va vous aider ak euh, facilité pour euh, defar ko ce sera pour tout à l'heure dans la rubrique cuisine en attendant on enchaîne ak euh, téléachat bi.